waaye da nga mos a gis bu ñu dem de sax. waxuma dañ koy laaj salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. ah na ngeen def waay. ah, ah

mënuñu la baax. maa def nag sama gars yi mënuñu la baax. ba yéen a ngi góorgóorlu ci koor gi. ah koor nag. asalaamaaleykum. maaleykum salaam maaleykum salaam. mais des fois buur jamono si bële bàyyi ko rek. sëñ sax ko rek. yow ah waay borom tuq si. siyaar naa leen. Ah, ndeysaan jamono nekkul ba léegi bàyyi tuq si. ndeysaan xamul na ma. non saa yu bëri bu dee dugg samay jamono dugg samay jamono. xamoon ne mag nga naa yaa ngi jëm mag de. wallaay yaa ngi jëm mag gis ngay dox di wenguloo gi yëpp da nga jéem a jubbantiku nag. bu la dalee wengulu yàgg na da nga mujj benn tam. billaay booy weng ba mu yàgg gisoo ci résultat yi da ngay jéem a jubbanti. jéem a jubbanti da ngay jéem a ah, kii nga xam ne at mu solo. amul solo nga ñun. <laughs> di weng di weng ba mu yàgg da ngay jéem a jub. yaa ngi jëm mag wallaay xanaa loo yëngu-yëngu ba dugg ci weeru koor gi nga xam ne yaa ngi ci weeru koor nag sensé doxalin sensé lépp loolu daal war a bokk de ay waay yéen ñi kenn ngeen loolu ci am loolu war ngeen ko mën a am ci weer bi góorgóorlu leen yéen a ngi jëm mag de man ni man du ma diggee sangaay bu mu ko jëlee day fekk ma sama ah waaw waaw dëgg la wax yow lii yaa ma koy wax waaye sa ma ko wax na sa baay xam na ma yaa ma koy wax waaye ba ne léegi. waaw na yàqu na yàqu na. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah. yéen doom lay tàng nii de. ak yéen da ngeen di agressé nit ñi wala la. nga ne tàndalu ñu tàndalu ñu dina. ah gis nga xam ngeen yéen yéen yéen yéen yow sëñ Baara ya, Mar Mbaye bi fi ngeen génn war ngeen ko war ngeen a génn foofu wa yéen maa ngi toog rek di leen déglu war ngeen a génn foofu rek yéen yéen ñaar war ngeen a génn foofu tos tos ah kat kat kan gis ba dem tan yaa moom sa leen ko pacal tan gis sa tan tan carara yaa moom sa leen ko pacal tan gis sa tan tan carara yaa moom sa leen ko gis gis

waaye yow mos kàllaf mu toll na yow lu toll na weeru koor ñii di def seen ñi fi caaxaan yi nga ànd ci ñoom ba pare taw bëgg a leen. lu xam nga li ma lay wax bu baax a baax yow Alpha yow danga di mag yow sa doom rek sa taaw rek ñun parce que liñ ko magee bëriwul. mag mu toll na yow lu toll na weeru koor sa jour ramadan amul lenn loo ciy def xanaa di bàkkaar ci mag mu toll. astafurlah ci sa xel ci yàlla sa xam ne bis dana ñëw daal la takk daal la suul. astafurlah bàkkaar yu ma def. dugg ci weeru koor da nga koy arrêté. saw sa caaxaan yi ma ko fa dëgg yàlla. eh may ma yow it ma ñëw yéen ay gone ngeen. dëgg la di dimbali. seen nijaay jii ba mu ñëwee laa njëkk a araftu seen nijaay. ay xale yu ndaw ngeen yéen ëllëg yéen lay suñu borom gën a soxla. wallaay wallaay ndax yàlla nee boo ko joxee sax ndaw mu teel la sax mag. dëgg la kon seen ndaw gi bu leen ko sàggane. wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ngeen nekk ay ndaw bopp paa yi nga xam. ndeysaan ndeysaan mani ci caaxaan sëñ Ba nee na sëñ Ba nee na dañuy boole nit ci mani dëgg mani c'est la c'est la c'est la sang c'est la sang qui augmente yow may leen nag c'est la sang may nu qui augmente yow déglu jëlal yow déglu jëlal su ko defee topp seen bakkan di wax kii ni muy wax lu am solo la téere la déglu jëlal ñëwal ñun toos ñun ñun ñun toos xam nga ne lii indiwuñ fi seejoor bi moo ñu fi indi waaw seejoor mani seejoor ko fi nekk war ngay déglu te di dégg tey déglu ndigal li fi ne eh, ndax doo di digal doo dégg kenn mu laa tee waaye ku ñu digal da ngay dégg kenn mu laa tee may la képp li wax téere la kenn ko man sa ba ngi sa tege dégg sa li téere mooy lu tax ni ci wéeru ak sama ñi yéen man yéen man yéen ma fontoo ma ala télé seen dëkk man ngeen a arrêté di ngeen defoo lu leen yow yaay borom fii responsable bi ci yow la ne ñii ay caaxaan rek lañ ne. mu mbal la say bu ay mooy am ci sa restaurant ak man mii. ndax ah. dañ may dégg. waaw mën na toll ko jàngu alxuraan. leen a def lu baax amu leen lenn loo leen def naan ragas a gis ak ragas a gis bakkañ yéen a ngi fekk kenn xamu leen. toog leen romb fii. yéen a ngi ci caaxaan dem leen jaamu ji yàlla. doon ndaw nag du tee xam li nga bëgg jox bopum suñu borom dëgg la bu magge yalla teew ko magam dëgg la man nag lii laa ci luma len di wax seigne Fall tay nak mer naa trop bu fekkee ma leen ci bëri dootu ma fi ñew dëgg na waye man nit yax ñepp a yem ñàkk nga fay da torop ba sa paxe bakkan yaram wallahi seigne Fall yaay ba ko mu dem mané mané ma ne sobe sun borom jor sey joor bu ne bi fi dara sey joor suba bi ci ko xamante ci ni bu ne bërët fii bu ne bu dugg bu dugg rek man ñu nekk sa mbedd ma ñoom ñepp a fàq si ñëw ku fi ñew dina ko génn te yéen da ngeen war a jóg sax may noonu jóg leen jóg leen. jóg leen jóg leen ngeen palaas waaw waaw génn si génn waxal sa jarwaat yi ñu génn fii kër ga kër ga dem ayco kosam bu ñaaw bi di mel ne dalu mbët loo na fii dama ko mel ne ku sol nga am noonu yi jógale buur jógal yow xam naa ne nag xam naa buur jógal xam naa ne nag yow yow yow yow Cheikh ah, ñii dem na sëñ Fall dem na moom sëñ Fall mën naa ko comprendre ah moom mer ma ba dem mais yow sa duur nga yow sa toq si gii lakkal ñu it te li ngay xamu ko. buur ñun ñu ñëw ànd cosaan. buur lii maam moo ñu fi bàyyi la. buur booy yi ñëw di kaa jëye. buur mën ngaa dem wala mënoo dem. buur kañ ngaa dem. buur kañ ngay dem. Ah, ah, ah, na kii ma doon rey doo ma xam. buur ci leen mën ngeen. demal ngay mel. Paka Dias nii. nga mel ne suppame nii. cëpp. wuy ma. man moom da yow naa yaraanga trop rus naa trop gi nga sëñ Fall mi bett na ma sëñ Fall bett na ma di jox sëñ Fall bett na ma waaye la gën a bett la gën a bett waaye moom maa bi te ngay dem ba maa sama gaaj dañ jaay moom mo yëm ko conseil dama koy conseil ki ñu ko mala ko yëm du yàq yàqu dara sa moom mën naa ko fi tey nag ku wax lii wax la ca des nag dëgg yàlla tey ji moom dëgg dëgg dëgg amati naa gàcce fii rek see joor rek chaque jour daal déception.